biir yéen a bi di Walf Quotidien xam le ne lu yóbbee tey nguur gi am jafe-jafe bokk na ci ñàkk a jox cër askan wi ñàkk a leen teggin ak ñàkk a fulaal askan wi ba ci yaakaar bu tas ak yeneen ak yeneen tax ñu bari ci askan wi wàccoon ci mbedd mi doon ñaxtu Boubacar Boris Diop ne ñaxtu yi tey bu jollee lépp a ngi tàmbale ci dossier Ousmane Sonko waaye askan wi seen boolu mu ñu kaay yàgg naa fees leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien Boubacar Boris Diop ne lu aju ci élection présidentielle 2024 njiitu réew mi Macky Sall bu ko kenn sóoraale daanaka bokkatul ca course bi waratul doon candidat ci dem gannaaw yëglu bi askan wi jot a yëglu yàggut ci mbeddu ndakaaru yéen kaabi di turbine loolee tax na njiitu réew Macky Sall mu ngi ci yoonu yeesalaat gouvernement am am nañu bari ñoo xamante ne mun naa ko tàqalikook ñoom turbine moom njiitu réew bi Macky Sall daanaka boo ko xoolee xaw naa weet ak jafe-jafeem lim bu new ci ay jege ñaalem ñoo jógoon taxaw ngir mun ko défendre waaye ñu bari dañoo faf waaf dem làqatu ji bëggatuñu woon a wonewu yéen kaabi di réew mi quotidien njiitu réew Macky Sall jël na dogal tukkee ci ndajeb conseil des ministres gawoon démb xam le ne fileeg fukki fan ci national bu njëkk ngir waxtaane xewum ndaw ñi yéenekaay bi di la Soleil ne programme d'urgence gu yaatu lay doon ndax la ca gi fas yéene dugal ci koppar toll na ci ñetti téeméeri milliards yu toftal juróom fukk ngir mun a dooleel xewum ndaw ñi diggante 2021 gi ñu ne jàpp 2022 ba 2023 leneen te tukkee ci ndajeb conseil des ministres googule bésub dey ci alxamisu tey ji di dogal gi njiit réew mi Macky Sall jël ngir askanu Sénégal ñaanal woy dawlu yi ñàkk seen bakkan ci fan yi ñu weesu ci mbeddu Ndakaaru ak feneen ak feneen yéenekaay bi ne bu ñu yeggee fukki fan ak gi ñu ne lii di état de catastrophe sanitaire dootul amati njiitu réew mi Macky Sall ne daañ ko teggil askan wi ba ci couvre-feu beek yeneen ak yeneen yéen caabi di Le Quotidien gannaaw fitna bi fi woon tey Sénégal taxaw na ngir delloo njukkal ak ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la seen bakkan rot fan yi ba tax na drapeau yi dañuy sëngeem maanaam dañ leen di wàcce yéen caabi di las ne deuil national lay doon ci alxamis ji dina feeñ ci drapeau national gannaaw lim bu ci ay doomi aadama yi fi jot ñàkk seen bakkan yéen caabi di L'Évidence ne njiitu réew mi Macky na ci discours yàggut tax wàllu njàngale mu kawe mi di Cheikh Omar Anne gis ne kàddu yi bawoo ci njiitu réew mi Macky Sall dal la woote ci réew mi Cheikh Omar Anne ne nañu tappewaat xol yi te joxante loxo ne ab réew munta développé wu munta suqaliku te jàmm amu fa yéen a kaabi di Vox Populi ne moom capitaine Touré ndax jàmmam du jeex tey jii gannaaw bu mu tekkee ndombol tànkam yàggul ci gendarmerie yéen a kaabi ne tey lañ ko wóolu ca section de recherche ba ne ca Colobane moom capitaine Touré jot naa sulli ay mboot yu bari ci dossier Ousmane am dem sax bay naan xëy na dafa àndut ak sagoom capitaine Touré ne dara jotu ko xam le ne saay bu gaay yi jàppee ne dafa def naka su dul noonu nañ ko teg daan ci biir yéen a kaabi di vox populi ay waajuram jaaxle lool dem ba njortu ne seen doom di capitaine Touré xëy na dañ ko fagagal ci mbirum xarga fuufa capitaine Omar Touré déggal ci biir yéen a kaabi di ne dara jotu ko waxtuwu ne ne saay su ne mun naa dem kaso waaye na sénégalais xam ne ku bëgg réew mi la major Kandji ci biir yéen a kaabi di les écoles ne capitaine Omar Touré mile day nax boppam sagalul benn yoon militaire yi rawatina waa gendarmerie te bu deful ndànk moom capitaine Omar Touré ay mun nañ ko caa fekk commissaire Keita santaane capitaine Omar Touré mile sagalul benn yoon takk der liggéey gañ ko santoon def cee manduwul yéena kaabi di l'exclusif ne complot gàññeen nit ñi daan rumandaat ak di ko laam ci dossier Ousmane Sonko ak Adji am na lu ci tàmbalee feeñ gannaaw waxtaan nga siiwal te dox ci diggante Adji Sarr ak Sidi Ahmed ba ko ñaareel bile complot ndax newul ne dañ fee bëgg a suul coowal yi Ousmane Sonko jotoon a tuumaal Mamadou Mamour Diallo yéena kaabi di l'observateur Mamour Diagne dal dina clamé ci yoon ay naataangoom di maître Bamba Cissé ak maître Pape Samba yéene kaabi di sursaane avocat yi seq dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu ñu deful ndànk ay daan mun naa tegu ci seen dodd ndax la ñu siiwal ci penc mi te warutoon a génn yéene kaabi di sursaane gannaaw ña songoon ba yàq yàqet RFM bu Mbàkke yàq itamit station de service bu Total Gafane ak agence Sonatel gane ca Touba sursaane am na ñu ca tàmbale jàpp ba teg nañ ca loxo lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama yéene kaabi di Direct ci li Sénégal jot a dund Emmanuel Macron kenn déggu ko ci génne cabinet moo ne dañ jiitu réew Sall lu wokk France gu ne ma nga fa waaye tey wet nag jafe-jafeem ci réew mi direct news ne ci waxtu wi ci la njiitu réew mi Macky Sall waroon a xàmme ay xaritam waroon a xàmme ay nitam rawatina ñamuy jëflanteel yéene cabinet li quotidien xëy di laajte ana li des ci image yu Sénégal ndax ay fan a ngi ni derub Sénégal rafetul benn yoon ci bitim réew am na fi ay gàkk-gàkk yu bëri yéene cabinet li quotidien ne kuréel gi boo taskatu xibaar yi di kap jot nañoo joxoñ baaraam sénéra mi ñu ne day gàkkal liggéey bi ndax yàggul sénéra jël na fi dogal coupé ñaari signalu télévision muy Walf TV ak Sen TV te joxu leen benn yoon kayit ga ko sabab kuréel gi boot taskatu xibaar yi ne jot na sénéra bile ñu jëlee ko fi teg fi arka taskatu xibaar yi seen kàddu ci biir yéene kaabidi li quotidien ne ay fan a ngi ni dund nañu xoqatal dànkaafu dund nañ ko fi ba ci ak yeneen ak yeneen rawatina li xew ci dossier Ousmane Sonko lim bu tàkku ci taskatu xibaar yi teguñu woon seen tànk ca biir assemblée nationale ngir mun a fekkee keroog ba ñuy muri mbalaanu kirlaayu Ousmane Sonko yéene kaabidi libération xëyee business gi am industrie pharmaceutique bi jëm ci xeexu mbas mi di coronavirus ak sabotage gi ñu ne am na ci initiative COVAX ak Big Pharma nam ca doxalee doon lu jaaxal ñu bëri libération xëy si wàllu tolloog fukki njumteem yam ca def MD Sénégal ak la ca nguur gi diggee woon ne dootul yàgg dina tàmbale liggéeyam waaye ba tey mënagul sotti yéene kaabi di le mandat xëye paj mi ak lii di feebaru roño feebar bu nga faju doon lu leen jafe lool ndax ñàkk taxaw ak ñàkk jumtukaay nguur geek lam ca digge woon ba ba léegi matalagu ko yéene kaabi di suñu làmb ne Balla combat dootul yàgg dina wutali Paris ngir gën a tàggataat boppam ci wàllu box ak lutte ko suñu lamb ne la ko sabab bokk na ci Balla Gaye 2 ma ngay wut ay pexe ngir mun a feyu maanaam daan Bombardier ci bile combat jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy yëkkate jotaayu xibaar yi di sant di gërëm bu baax baax Issa Issa Diagne moo fare woon ci eh, xarale gi réalisation Pierre Edouard fay ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba eh, ci kanam tuuti rek Issa Tine dana eh, Assane Gueye kon dana fi teew di koy yërënkat ci seen rubrique ganu kër gi